jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi almisbaax ñaanul ko tawfiix suturaak ciraanga ak poche def dara démb lañ ñu ci benn jataay bu tudd al adilla lil wiqaaya min covid di ci ànd ak docteur Ahmed Lo kulliyatu ifriqiya li dirasat al islamiya dañoo nekkoon ci tombub lan mooy gisuñu lislaam ci Covid 19 wala xew-xew yi xew ci àdduna te mel ni moom ñaareelu tomb bi ñu gisoon ndax lii masoon naa xew jamonoy annabiyul Mustafa sallallahu alayhi wa ak saxaaba yi ridwanullahi taala alayhim ñu gis ne waaw gis ne waaw am na ci bu xewoon Imwaas la tuddoon am na ci bu xewoon aljaarif ak yeneen yoo xam ne mu ngi woon ci biir bi ñu yëkkati jataay bi dem bu ñu tolloon nag ci pexe yi nga xam ne moom lañuy lal pour fegu ci ñu njëkke woon ci bi ci war a jiitu te mooy atawakkulu ala llahi wéeru ci yàlla wakiirlu ci yàlla te wóor ne lan yusibana illa ma kataba lana loolu gëm-gëm la waaye gëm-gëm gi nag du tax a yàccaaral dafa am jamono sallallahu alayhi wa toog ci almadina menn mbokk ñëw madina te jóge fu sori alayhi salaatu salaam xam ni kii cil maxambaakool la jóge cil maxambaakool la jóge te war waayu yombut alayhi salaatu salaam ne ko ah, loo war bi ngay ñëw mu ne ko gëléem laa war mu ne ko ana gëléem ga mu ne ko bi ma agsee ci dëkk bi laa ko wacc dénk ko yàlla te ñëw nuyu si la alayhi salaatu salaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko door ko gis nga boobu daa war a demal nga jàpp ko yeew ko door ko koo dénk ndax wàcc ko ci mbooy gi dénk ko yàlla loolu du tawakkul loolu yàccaaral la te itam danga nga ciy déggee na bu fa moruq ja jaaroon jël gëléem nga yàlla mi ko dénk moom mi ngi koy gis ba léegi waaye yow nag gëléem nga sànku na gisutoo ko loolu loolu bu mokkee ñu baree bari bu ñuy denc te danañ denc denc bu wér door koy dénk yàlla waaye sànni siif rek ne dénk naa ko yàlla yàlla moom mi la koy xoolal waaye nag gëléem gi mën na laa sori ba tax kon loolu la njëkk a def mooy wakkilu ci yàlla subhanahu wa taala jox suñu lépp lan yusib xul lan yusibana illa ma kataba llahu lana lu yàlla dugalu du la dal waaye nag <laughs> da ngay dégg baat bi nag ñaareel ba ci li ñu war a def mooy ñu xam ne jël sabab yi nga xam ne mooy tax feggu balam laa dal ci la bokk waaw fegu bala laa do lii dal di dal waaw ci sharia tegtal yu baree bari moo ci am ci wàllu fegu ci li nga bañ mu dal la fegu gis nga bi koor gi ñëwee ndaw ku ndaa yi daw xiif ñoom imaam lay ndaw dafa am lu ñuy lekk ci fajar gi ba noppi naan pour bañ xiif bañ leen a sonal ci diggu bëccëg bi waaye boo doon ah bu yàlla dogalee xiif danaa xiif bu dogalee mar danaa mer danga xiif danga nga mar te da sonn lool su boobaa moo tax jël sabab yi loolu lu am solo la te nag ci sharia daf cee bari ay tegtal yu am solo yu ci am la ca jiitu mooy moytu ñim jote dal tajannubul wurud alal ashxaas moytu ñim jote dal moytu leen koo yëg moytu liñ ñëm jot a dal waaye yow tam nga moytu leen ko yëg barab bi nga xam ne yëg nga ne ma nga fa ak barab bi nga xam ne yëgu yëg nga ne nekku fa nga yemale leen ndax bee mën naa nekk ci yow nga yóbbu ko fa bii mën naa nekk ci yow mën naa ñàkk nekk ci yow nga jële ko fa alayhi salaatu salaam ku mën na jàngal mu ne dee leen daw ngaana ni ngeen di dawee gaynde dee leen daw ngaana ni ngeen di dawee gaynde waaw waaw maanaam ngaana xeetu feebar la boo xam ne day wàlle day wàlle ci noyyi koog na ko docteur yu jàngale aleyhi salaatu salaam la dawal feebaru ngaana ni ngay dawee gaynde loolu sans comment ne no comment noonu lañ koy waxee waaw eh, waxaat na moom aleyhi salaatu hadis boobu rawaahul Buxaari Oustaz Cheikh Tanja mu waxaat ne eh, laa yuridanna mumarridun eh, ala saxiix wala ala musix bu leen jaxase ñi feebar ak ñi wér bu leen jaxase ñi feebar ak ñi wér ndax ñi wér buñ jaxasoog ñi feebar ñi feebar man leen a wàll te kon coow la gën a bari loolu ab addis la bu bu xam ne bi moom itam rawaawul Buxaari ñaari addis yi tegtal lañ ci ne fegu gee xalaat lu ko fi jële cosaan la ci lislaam ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci yooyu waa kër docteur ñoo koy def te lislaam du ko bañ ndax moom joxe na la cay wàllam waaw mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot yàlla nañ mucc ci feebar bi ngeen mucc ci yàlla na fi jóge jàmm bokk na ci yooyu muy ñaareelu tomb bi ci ci wàllu nuñ ci fegoo mooy lislaam dafa am ay yëf yu mu proposé penc mi ay joxoñ yu mu yu mu def loolu moo tax bañ ko tawjihaat yooyu yan la dafa daal di wax ni lislaam euh, dafa am yu mu joxe boo xamee ne virus feeñ na walla feebar bu ni mel taaxu nekk yooyu am na yu bare bare bari ci ay njàngale yoo xam ne lislaam daf koo jàngale am solo ga tax ñu indi ko ci bind bi dafa am lu ñu tuddee al alxajru saxi ba demee ci boroom xam-xam yi mooy fexe ba ñàkk génn dëkk bi ñu doxal ko ñi wér ñu ñu ñu ñu téye leen fenn ñi wéri di ñu téye leen fenn quarantaine la ko gaa yi di tuddee gis nga loolu ab jullit buñ ko ko waxee bu day day day yëg ne diine moo ko ko njëkk a sant ab yonentam sallallahu alayhi bu fi nekkoon mu yëg ne feebar baa nga càlle te noga ya nga càlle dafa ñëwoon ca gàmmu ga feebar ba fekk ko fa bu dee lislaam di ko xam nogoy bul ñibbi mbar ah mu ne waaw bul ñibbi mbar ndax mën ngaa ñibbi mbar feebaroo sax nag waaye fe feebaraa ngi sa yaram tëddoo nga yóbbu ko mbar wàllu ko xadi ndimoo <laughs> wàllu ko kolle jéey waa ñépp nga wàll leen ko yàlla tere ba walla ko pap jéey mu ne kon su la xasee fekk ci barab barab bul génn barab ba di yóbbu feebar bi boo ko déggee ci barab bul ca dem dikk na ci sayu muslim sallallahu alayhi wa sallam waxoon ca ataaun lu mu waxoon ayatu rijsil ibtala allahu azza wa jalla bihi naasan min ibaadi nee xeeti taaun yooyu xeeti feebar yooyu ak bii nii nee na mbugal la mu yàllay nattoo nit aw nit ci jaamum yi waaye mu wax ca lu am solo moom alayhi salaatu salaam nan ko déglu te jëfe ko daf ni fa ida samitum bihi fala tadxulu alayhi wa isa waqaa bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu loolu la yonte ba jàngale woon waaw te itam xam naa ne buñ ko jëfe woon ñu bare bari noppalu daf ne bu ngeen ko déggee ci barab bu leen dugg ca barab ba bu ngeen nekkee ci barab mu fekk leen ca bu leen génn barab ba waaw lu lay li xew tey bu leen fekkee ci barab waaw feebar bi ñëw na càlle fekk fa xëdi fekk fa nogay bu nogay jóge mukk càlle di dellu mbar feebar bi mbar la ko fekk bu nogay jóge mbar mukk di ko indi càlle gis nga loolu fi ne ci jaamu yàlla la bokk maanaam déggal sallallahu alayhi wa adduna si fi mu nekk nii dañoo complexe ñoom it waaye addis bi mi ngi woon ci addis yi bi feebar bi xewee siin bi feebar bi xewee siin bu siin tëjoon frontière am yépp réew yépp tëj seeni frontière feebar bi siin lay yem dañ ko maîtriser dóor ko mu daanu laaj ko docteur Ndiaye malheureusement waaw feebar bi dal ñu naan Chine virus feeñ na fa Covid 19 ndàngam ndàngam avion yi di daaw ko dem ak a ñëw ñu jële ko ca dëkk ba mu amoon yóbbu ko ci beneen dëkk yóbbu ko ci beneen dëkk aha jële ko fa nag feebar caw wu dem Espagne dégg la mu fa def feebar ba nag caw wu dem itali dégg la mu fa def mu ni caw ma nga Allemagne feebar ba dem na Iran dem na Makka di lu tax nit ñoo ko fa yóbbu nit ñoo ko fa yóbbu ay buñ déggaloon njool màkk mi annabiyul Mustafa buñ ko déggaloon kenn du jóge Chine buñ ko déggaloon kenn du dem siin waaye nag nit ñi <laughs> moom ay waxam waxi barkeelu lañ ko teg moom yonent bi ñu teg ko yonentu barkeelu waaw bu waxee daal bu daanalee ñëpp ne njool màkk borom barrière or baak la waaye kenn du kenn du jàpp ne li muy wax nii adduna si dañ ko war a jëf lu tax parce que adduna si jàpp nañ ne moom xelam mi doyut wax yoom bi nangam waaye lii wax nii su fekkoon ca tàmbali ba la xewoon bu dul loolu ñun suñu réew mii nga xam ne mooy Sénégal bi ñu yëgee feebar bi li ñu li ñu def tëj frontières yi buñ ko tàmbali woon keroog bañ ko déggee kon du fi ñëw waaye ñu bàyyi nit ñi ñëw am ko ñëw ñu ne ah diw indi ko fi de ñu defoon njàng ñu ne am na kenn ko fi ne de muy ñaar ñu tëj frontières yi ñaar yooyu ci boppam di tasaaro ba àgg ci ñetti junni ñaar yooyu ñoo tasaaroo ba àgg ci ñetti junni léegi waaw ñaari kaa yu jóge bitim réew ñëw léegi ba am ñetti junni cas ñun fukk ak nangam jot cee faatu yàlla na fi yem nag sallallahu alayhi wa sallam alxuraan daf ne woon fal yastari lazina yuxaalifuna an amri an tusibahum fitna waaw moytu leen du juyoog moom ndax juyoog moom day jural penc mi fitna lu mu wax def leen ko lu mu tere bàyyi leen ko mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot yàlla na ngeen mucc ci feebar bi nu mucc ci waaw yàlla nañ ci mucc nu mucc ci kon loolu mooy tombum ñaareel bi ci wàllu xalaat yi ñuy def pour fegu ci feebar bi benn benn mooy euh, jéem a wakkilu ci yàlla subhanahu wa ñaar mooy jël sabab yi nga xam ne mooy sabab bi fegu yi waaw sabab bi fegu yooyu nag lislaam daa joxañ ay mbir lam jiital ca yooye mooy ñi feebar agut ñu ñu ñu aar leen ñu jote feebar it ñu aar leen maanaam ñu toog seen barab al ulama boroom xam-xam yi dollu ci ay yëf yu am solo dollu ci ay yëf yu am solo yëf yooyu am solo yi dëppoog ya lislaam tëral yépp te ñu tudd ci benn léegi ba jiitu ci tomb yooyu mooy lislaam dox maanaam tere euh, ngir bañ feebar bi tasaaroo mu tere génn loolu nag dafa métti dafa metti al manu min al dafa métti almanu min al xuruji mooy jur dañ na la bul génn kon noonu lañuy waxee ñële bu leen ñëw waaye nag dafa metti moo tax bi ñu koy tàmbali ñu tàmbali na nag nañ jox ku nekk lum toogee këram bu ñaar yooyu àndul ci wàllu politik maanaam ci wàllu tëralin laa bëgg a wax bu ñaar yooyu àndul kiiñ na toogal day am problème waaw kiiñ na toogal day am problème ndax kiiñ ne toogal dañ ko war a demal fa mu ba fa mu bëggoon a dem su fekkee dañ ne ko toogal demut te kenn demulu ko fa mu bëgg a dem loola ci moom problème lay doon ñaari problème benn bi mooy xalaat yi muy xalaat lii ñëw bu ñetteel bi mooy waaw bu ñaareel bi mooy loolu ko war a fekk si te mar koo jëli te indiwuñ ko lu am solo la moo tax bi ñu tollee ci bu kenn génn bis biñ la ko waxee ci ëllëg sa war ngaa jot loola tax loola tax a mën a toog boo ci tegee benn fan boo ci tegee ñaari fan boo ci tegee fukki fan ak juróom ba far di ca teg weer ñu jàpp ñaari weer kii la toogloo kii la toogloo ah mi ngi bàyyiwul xel ci yaa ngi ci mbir te itam wolof nee na kuy wàllu ko xiif dangay ngay gaaw waaw léegi loolu tomb la bu am solo yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ci laa daraara walla diraara waaw la darara wala diraar la darara wala diraar lu am solo loolu ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, euh, dikk dikkal ñu ci dikk bu yaatu boobu waaw waaw dikkal ñu ci dikk bi yaatu boobu la darara wala diraar kooku yaatalil mu yaatu lool tabaarakallahu kon nit bu mu lore bu ñu ko lor nit bu mu lore bu ñu ko lor bu lore bu ñu la lor nag lu am am solo la ci ci wàllu liggéey bi wala lu am solo la ci wàllu njàng mi ci wàllu njàngale mi lu ci am solo la mooy la darara wala diraar bul lore bul loru la kon ba ca tege mooy al manu min duxulil mantiqa mooy ba ñu nee ñii bu leen génn ba ñu nee ñii bu leen génn dañu ne ñii yéen tam bu leen dem waaw dañu ne ñii bu leen génn ne ñii yéen tam bu leen dem maanaam ñaar ñépp ñoo koy bokk kii dañ ne ko bul dem fële kii ñu ne ko bul génn kii ñu ne bul dem ne kii bul génn ñoom ñaar ñoo yem àtte ñoom ñaar ñoo yem àtte ndax yóbbul nit ñi feebar bi ak jël si ko indil leen ko benn moo ci jógul pénc mi jël feebar bi yóbbul ko aw nit walla dem ci barab jëli ko fa indi yépp am problème kon ni nit ki war a def mooy fexe ba du ko yóbbul kenn fexe ba du ko jëlil kenn soo yóbbuwut jëliwoo rek tiye ko day daal yomb ñaari tomb nga bu ñetteel bi fexe ba doon noy yi ngelawul feebar bi adamu istinshaqil hawa fexe ba bul noy yi ngelawul feebar bi loolu moo indi mask yi ndax feebar boo xam ne bii mën naa sarax ndiku bakkanum nit mën naa jaar ca bët ya mën naa jaar ca gémmiñ ga feebar boobu dangay ngay fexe ba takk sa mask ndax du dugg sa gémmiñ du dugg sa bakkan te ginnaaw bët mënu koo gis bi muy dugg sa gémmiñ sa bakkan doo ko yëg waaw du la sarax sarax ba nga naan agsi na doo ko yëg waaye dana am na muy demee noo xam ne nii waaw tabaarakallah su ko defee ba bañ koo sarax moo jur ñuy ñu jël masque yi di ko def di ko takk soo demee màkk sax jamono yi nga xam ne yaa ngi aji eh, ñiy jóge ci réewu asiatique yi ñoom bu ñuy ñëw ñoom dañoo tàmm takk mask koo ci gis mi nga takk masque waaye daal adamu sitin shaqil hawa allati yaxmilu dalika al waba al virus bi mooy fexe ba doo ko noyyi soo xasee dugg sa oto nag nee nañu nga xam ne yow dong nga ne ci oto bi nag yow dong yaa ci nekk su boobaa ñàkk a takk mask du la gaar du la gaar du la du la gaañ waaye su fekkee am na koo ci nekkal yéen ñaar ñëpp war a takk masque ndax moom bu ko yoree mën na la ko jox yow boo ko yoree mën nga ko jox rawatina bu ngeen bokkee nekk ci ban boo xam ne bi boo tàllalee sa loxo mu jot ko moom tam bu tàllalee sa loxo jot la. su fekkee nag néeg ko ci oto bi xanaa da ngeen daje ci benn barab yaa nga ca marché ba wala yaa nga ca rajo ba wala yaa nga ca nangam loolu da ngay takk ba ñëwee ci Sud FM le directeur Baye Omar yàlla na ko yàlla yokk wér def nay masque yoo xam ni masque su FM la ba ba def ci ma marque ba tabarkàlla Baye Omar jëf waaye bunt bi tam boo ñëwee boo agsee bala ngaa yéeg am na lu ñu la toqalal ci sa lox bi nga raayoo ilaa axiri mu ngoog kon loolu ci ci ci fegu la bokk fexe ba virus bi bul ko noyyi bu dugg sa gémmiñ bum dugg sa bët waaw mu ngoog bu mu dugg sa bët waaw loolu ama am solo la soo génnee ba dellusi bul wax ne nàngam nàngam waaw loolu bu bu bu ñetteel la bu ñeenteel bi ñàkk a nekk ak ñi nga xam ne ñoom la dal feebar bi dal soo seetloo fi nekk feebar bi dal say bokk du ñëw di di seet si malade bi mbaa yaa ngi tane déedéet bu ñu ko seetee naan ko mbaa yaa ngi tane jox ko loxoog jox ko dara loola ko dal da leen di yóbbu da leen maanaam dañ ko yóbbaale moo tax léeg-léeg nga dégg ñu naan ay am na ay cas yoo xam ne kenn xamul ku leen ko wàll cas communautaire lañ koy tuddee je pense que noonu la monsieur le ministre kaa yooyu bu dalee ci pénc mi nga xam ne yow xamoo ku la ko wàll dafa am yooyu boo ko defoon te ne ci pénc mi moo ëpp sens ci nga mucc ci ñu wàll la ko kon almarda bul dugg ci seen biir léegi nag comme xamoo leen comme xamoo leen dangay moytu ndaje yi riisoo gi tampaloo gi ak yooyu da koy moytu la ma del ci addis ba yonent ba mu ne dawal feebaru ngaana ni ngay dawele feebar ni ngay dawee gaynde dawal ngaana ni ngay dawee gaynde waaw naka noonu it li ma waxoon ne bu leen jaxasee ñi feebar ak ñi wér waxin la ca ba ci tege ci lislaam indi mooy mooy mooy fag mooy mooy wogosu wogosu la ko la di wax lépp loo xam ne dañoo wax ne boo ca nekkee mën naa tax ñu wàll la ko nga moytu loolee te wàkkilu ci yàlla bañu am yenn tiitaa ngi nag maanaam tiit ba mel ni yow feebar bi fi nekk nii boo xëyee bu ngoonee mu dal la yenn tiit yi nag daanaka mook feebar bi ñoo dal ñoo yem am na ñoo xam ne dañoo tiita tiita tiit ba nga xam ne tabarkàlla ñoo ñett da yem waaw imwaas ba mu amee amr ibn aas nee nañu daal daa dem ca montagne ya séddale gaa yi ila majmuatin na ñi nekk fii na ñuy nekk fii pour lan pour bañ feebar bi jàll ca ñee wala mu jàll ci ñi loolu moo ko def mbokk yi bu ñu yàlla mayee nu dund ba ëllëg yàlla nu dund ba ëllëg te weesu ko ñu ñëw ci beneen tomb mooy mawqiful islaam min ijraat allati tad'u biha asultatu sixiya li raddi ala vid euh, covid 19 di ci ànd ak docteur Ahmed Lo yàlla yàlla sàmm ko te sàmm nu sàmm leen aar nu ci feebar bi nga xam ne moo ne ci penc bi tabarakallahu te itam euh, di lu di di lu di lakkal ñu baree bare wala lakkal ñëpp lakkal ñu witt waaw yàlla na boole sàmm te sàmm leen ak suñu foree ko te jotaay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne taxaw yor seen i kayit bëgg leen firiñ fàncal xibaar tubaab firiñ fàncal ci wolof